ci bokk gi nu bokk yittewoo liggéey bi te liggéey bépp di liggéeyu sëriñ bi rek kon sëriñ bi naa ne mi ngi leen di bu baax di siyaare ñëpp kàddu nag yoo xam ne naka jekk ci ndigalul sëriñ Moussa sëriñ Moussa naawel sama jëriñ laa koy yëkkate te loolu mooy bu delloo ci programme bu sëriñ bi ci ziyaare yi ak waxtu yi ak bis yi naka jekk sëriñ bi day def ne liggéey bi rek mooy yitteem waxtu wu ne day wax nan na ci liggéey bi wala nan dem ci liggéey ba liggéey bi nag boo ko waxee mooy ñëw ba kër Serigne Touba toog feeg taay daayira yi ak Serigne si ak taalibe Serigne Touba yëpp ci gàttal waaye mën a jóge boo ñëwee fekk ko fa mu jëflante ak yow waxtaan ak yow ànd ak yow liggéey bi loo am andi ko jox ko ko mu defal ci liggéey Serigne Touba ci biir loolu nag léeg-léeg mu toll diggante yoo xam ne li muy wax mooy. dama bëgg bokki taalibe yi na ñi yor ay daayira jéggal ma mu ñul ma ba waxtu sàngam xam nañ ne coono yi bari na ci moom lool biñ jógee magalu Tuuba ñëpp gisoon nañ coono yi doon jànkonteel bañ jàppoon ne fan yooyu day noppalu waaye waxtu wu ne mooy na nekk ci liggéey bi rek ba gàmmo biñ gàmmo ba noppi ñu seentu ne day noppalu mooy nan ne ci liggéey bi rek am yu nekkoon ci kanamam mu ne nan nekk ba weesu yooya mooy tàmbali gi ñu waroon tàmbali liggéey bi daara ji université bi ak ubbi gi ñu waroon ubbi ilaa Tuubaa bi mu ne woon kon bu ñu weesoo gàmmo weesu ubbital yi weesu ubbi eh, ubbite gi weesu teg xeer wi kon nag ñu door a xool nu ñuy def ba taalibe yi may ko as ndiggante mu noppalu tuuti moo tax muy biig nag ci àjjuma ji mu ne tàmbalee tey jii ci gaaw bii daa bëgg ñu may ko diiru ñaari ay bis te mel na gaaw tey bi mooy ñaar fukki fan ak ñaar ci décembre mu mel ne kon décembre des na ay bis mu mel ne janvier des na ay bis waaye daf ne da ca tegoon na ban àgg ca ba xam ban àgg ca ba xam mooy buñ ci àggee mën naa jeex ca booba wala wala dara mën na caa dolliku waaye li gën a wóor ci gën a wóor ku ko mën ngay bàyyi ba ginnaaw 15 janvier nga doon a tàmbali am sa programme ndax loolu mooy ñaari ay bis wala ñett ñaar yi mooy huit huit janvier bu dee ñett nag mooy doon quinze janvier te ñett yi moo gën a wóor nañ jàpp loolu loolu la ne woon nañ ko jotale ñëpp ñëpp déggandoo ko kon ndigal laa ngi noonu nañ ko fas yéene jëfe noonu may ko mu nekk ci ak ay xalwatoom wala ay xalawaatam ci fu ko bëgg a defee defee ko fa ñu may ko fa mu ne ci sagoom ne ci dalam lu àggale yamee àggale